Mm-hmm. di leen di féliciter di di mm-hmm. euh, président Bougane wax nga jël na fa parole euh, intervenir ci cadre euh, criminalisation homosexualité bi. Mm-hmm. ak position bi premier ministre jël. di candidat Ousmane Sonko. donc le cadre traitement question góor engagement bu bu di actuellement posture à l'appel du président de la République lancé on mhm. le président de la République comme je le dis souvent mhm. auprès du premier ministre mhm. donc bi mu lancé pour <laughs> Mon une... le président auprès. Ok, un président non, auprès Bamba, s'il te plaît. Ce qui fait que. il est bien Le président, le président auprès. Donc, c'est un président auprès du premier ministre. Donc, c'est peut-être lolo dafa bok ci sen réforme ñu war mhm. ko ñu war ko matérialiser. Ah. Mais <laughs> euh, moi, lecture bu ñuy gis mhm. depuis le début. Mhm. Té aussi mu nek woro bo xamné euh dañ koy observer tout le temps si c'est ni si c'est ni acte mm-hmm. acte yi ñuy poser président bi muy def prestation de serment dafa ne dafa bëgg réconcilier sénégalais yi dafa bëgg lépp loo xam ne daf ñuy boole mm-hmm. ñu suuxat ko jëmbat ko suuxat ko mu mu jariñ mm-hmm. mu dem au niveau des Nations Unies à l'international dafa plaidoyer bu am solo ci wàllum gis-gis ak wàllum tabax sa askan ci wàllum valeur ak ay principe Sénégal nag nekk dëkk boo xam ne peut-être euh, man li ma jàpp mooy li leen li leen li leen li leen bloqué walla li leen seen limite mooy le fait que ñu enfermé wu pendant quinze ans mm. jékki-jékki rek ne puccet génn mm. xam nga cuuj bu nekkee ci nenam day mm. dem ba xat mm-hmm. mais yaakaar ne àdduna yëpp foofu la yem waaye bu sowee ba toj xoox bi kii kook bi ba génn. Mhm. si lay xam ne ndekete àdduna <laughs> yemul foofu rek. moo tax si fitna rek lay ne. Mhm. te j'ai peur que ñu egg ci ci ci niveau boo xam ne. Mhm. ils vont exercer une violence gratuite boo xam ne. d'abord la violence morale. elle violence morale bi ñu nekkee dafa jéggi dayoo. ci cadre nit ci ngëm-ngëmam ak pas-pasam. Mmh. publiquement un représentant la république mmh. jàkkaarloog askan ne carrément yéen li ngeen gëm fi ngeen di jullee fi ngeen di nàngamee lii ak lii ak lii moo fa ne mmh. mooy li ñuy wax ci tuumaal bu amul firnde parce que loolu buñ ko wowoon tey Cheikh Oumar Diagne buñ ko wowoon tey ne ko prouver lii ngay wax mënu koo prouver dañ ko waroon a woo nag ñoom koy dañ ko waroon woo en principe parce dafa am loo xam ne cohésion sociale bi nek ci dëkk bi. Mhm. def koy atteindre parce que ñoom bu leen seen ku sell gi jaralee ñuy jàmmaarloog nit ñi ba ay nit dee ki yor sëriñam mu jaral ko lu ne mu féete ko fu ne kooku bu jëflante bu abee seen jikko kon dëkk bi kenn du fi mën a dund. Mhm. Mhm donc abu jikko bobu nak peut-être si loolu lañuy pousser. parce que mhm. jot nañ ci réussir lenn ci diggante 2021 2023 vingt et mhm. abal sénégalais sen seen jikko ba ñu yàq dëkk bi ba bloqué dëkk bi pendant presque 3 ans. Mhm. té loolu lu ñu war bañ la. ndax Sénégal judduwul tey judduwul démb. Sénégal bañ koy tabax dafa yàgg. té dafa bok ci li tënk dëkk bi. Mm-hmm. li li li li li rataxal digënté yi mm-hmm. di tax ñu mën fi dund ci jamm respect yi ñu jox chef religieux yooyu ak ñooñu li ñuy tàggat ak li ñuy def ci nit ñi mm-hmm. loolu dafa bokk ci liy doxal dëkk bi li tax ñoom ñu mën a ci pouvoir bi ba am un apaisement total ci période bii nii nga xam ne c'est une période extrêmement difficile te lépp ci seen agissement la ñu jàll ci leneen muy la question de l'homosexualité mhm. muy question bo xamné limay président de la république au niveau de la tribune des nations unies mhm. dénoncé que vous ba yeen warul imposer <laughs> gis-gis ak sen askan imposer ko mhm. contrairement à ce discours dans les actes ñu ñëw jël pouvoir salam salaamaaleykum ñu recevoir qui représenté góor jigéen ñi biir Europe <laughs> làqu ko ba day sol jupe <laughs> ñu jóge ci loolu ñu ne dañ koy criminaliser premier ministre recevoir Mélenchon <laughs> ne ah fii kat dañ koy tolérer muy lu waroo ak discours bi ñu doon jël bi ñu pouvoir bi ñu jóge ci ñu commencé di di di di yónni seeni sentinelle ñuy ñuy commencé di divulguer message wu waaw ñii dañ fi war a am droit mhm. ay nit lañ langam sangam ay nit lañ certes phénomène la social boo xam ne dañ ko fi mës a fekk mhm. waaye booy tabax askan ñoom bu ñu amee vision 2050 mhm. du vision ay xaalis ak ay matériel ak nangam. ñun li ñu mhm. soxla mooy kuy tabax nit. Mhm. kuy tabax nit ku nite. Mhm. kuy tabax nit ku mais malheureusement li ñu remarqué. ci début bi ba léegi ci processus bi yëpp mooy nite boobu. moom moo ci manqué. aussi même boo xoolee ci programme. Sénégal 2050, bi. gisoo aspect buy promouvoir lool tabax nit.

d'abord nous nañu ci une crise diplomatique Bo Cheikh Omar Diagne c'est pas la première fois. Hmm. dégg nañ fait attaque Maroc. Hmm. Arabie Saoudite ainsi de suite Tout yëpp a affecté suñuy relation diplomatique. Hmm. donc mu nekk ci loo xam ne nous na tayef appel la bo xam dañ koy def. pour won nit ñi fa ñu jëm. bu dee loolu la nak ba lay yeboo ñu reculer parce que Sénégal bañ koy tabax. bañ koy tabax. ñoom juddooguñu. te principe yañ ko tabaxee ba léegi looloo des ci sénégalais yi. bu ñu melee ni ñu mel nag am seeni jiko nañ ko garder. te jox cër suñuy kilifa diine suñuy kilifa aada. principe homosexualité. lu ñu war a criminaliser la. parce que ça va à l'encontre de nos valeurs ça va à l'encontre de nos principes. loolu c'est des cas ça doit être des cas yoo xam ne ay cas yu yu marginal la war a nekk. Mm-hmm, mm-hmm. ñu traité ko socialement te on a un système social bu ko mën a bu ko mën a traité. Mm-hmm. donc ñu yaakaar naa ñu suuxat loolu moo gën ñu nekk di fi jëmbat loo xam ne. mënu fee sax. donc quels que soient les enjeux nag muy ay financement au niveau international des trucs peut-être nekk nañ ci crise créé nañ fi benn crise économique boo xam ne mu ngi fi. Mhm. boo xam ne tere nañ sénégalais yi ñu liggéey pendant deux ans ci ay problème mu aji saar ak ñoom seen. Mhm. ñu génn ci restez chez vous ñu dugal ñu si problème boo xam ne. Mhm. kenn xamul li mu li li li mu jur comme conséquence. si lu sénégalais yi. donc enjeu yi nekkul. di bëgg a wut ay financement tax mhm. ngay porter yenn combat yoo xam ne leer na la lii du mënul dox Sénégal mhm. mën nga jàllale la loi waaye loi boobu ñeneen ay ñëwaat wàccee ko mhm. donc li ñu dëglante woon ak askan wi muy criminaliser homosexualité bi nañ ci nañ ci dox jéego donc te en principe si loolu la ñu war a tënku buñ ko jéggee nag ñeneen sénégalais ñu ngi fi war a porter ce combat pour au moins ñag

pour que loolu yëpp ñu mën ko encadrer ñag suñu société mm-hmm. Mm-hmm. ba nga xam ne lépp loo xam ne day gàllankoor suñu nekkin mm-hmm. ak suñu nite ñu mën ko tegee wet d'accord euh, ba tey euh, mami euh, ñu àddu ci ay kàddu bëggaan xam nga ne nag boobu ba tey joxoon na ko fi sax ultimatum nekkoon na daal di génn wax